jërëjëf mbokk yi seetaan déglu mbégte ñu daal di dellu soit ak yéen ni nga ko baaxul di defee saa su ngir gàttal bàyyi nit ñi suñu noppee la ca des ñu dem ci yu YouTube bi daal di ko gëstu gën ko xam tey mbokki li ñu indi mooy cumin plante bi muy plante boo xam ni day sax Chine Inde Maroc Amérique du Nord waaye muy plante boo xam ni secret gi ca nekk dafa yaatu yenn saa nit dina jékki-jékki réeri mbokkam ay mbokkam jaaxle di dem fu ne daanuñ jël cumin def ko cuuraay ci néeg bi muy fanaan ñu daal di ko tëj jëmm jooju fu dee dafay dund bu ñu toggee ay fan dinañ am ay signe buy wane ne moo ngi bërëb sàngam cumin daanañ ko jël ci nit ku réer ñu am ci lenn lu ñu moom ci lalam wala lenn lu ñu moom ci la muy fanaan wala yërëm ñu daal di ko ci tiimale ko ak kume su dee mu ngi dund xel mi dafay dellu siwaat mu delluwaat fa mu nekkoon yenn saa nit dina nekk ak soxnaam jékki-jékki rek gàddaay dem soxna si jaaxle lool di wër fu ne def ci lu ne daanañ jël cumin daal di jël lenn ci ay yërëm yu mu gën a bëgg ñu daal di ko ci suuro yenn saa yi sax daal dañ jël caleçon bu muy bu muy jiital daal di ko tiimale su dee jigéen moo ko yóbbu day jékki-jékki rek gàddaay dellu siwaat kon cumin la ca nekk secret foofu laa yemagum soo ci bëggee am lenn lu bari loo ca xam demal ci chaîne YouTube boobu di Bio ma am na lenn luñ ci waxtaanee ci principe actif yi lu mu mën a dimbali nit ci wàllu wér gu ak yeneen yu ni mel ak boo ko bëggee jëfandikoo ci naan nan nga koy jëfandikoo jaa ngeen